assalamualaikum ah maki naa salo sàll sàll naka yitte yi mbaa yaa jamu. ci jàmm naka di yi mbaa kenn woppul naka Mariem nu def baa ma ngi ci jàmm yéen a ngi ca wàccaay tuxu baa yéen da xanaa seeni bagage dem na Maroc jiitu na de aw leen góor tuxu daa metti defal yi de moom fu ngeen tëdd di ngeen naka Saamudu nu mu def moom baa ko koor gi de jàpp ko waru koo jàpp ndax moom dina desal dara <laughs> amoon na yaram avant koor gi de ma kii Saamudu Sàll amoon na daal du jeexal daal moom wallaay aji Macky am nga deux minutes sa temps am nga wallaay aji metti bokku président dama mel ne ku la gis nga woote ci palais bala di def ay décoration intérieure des ordres du chevalier noir de Lion xaw ma moom nga doon def waaw góor ñi nga décoration ci réew mi na waaye wi ma s'il vous plaît question laay laajte yow ci ban yan critère nay nay nommé nit yi xanaa dangaa taxaw ci wetu fenêtre rek ku la mën a ko fii kaay ma nommé la kaay ma décoré la ah décoré nga daal lu neex daal dem nga ko <laughs> damaa xamul nag ci lan la dépendre c'est pour des service rendus à la nation wala ay réussite ak ay contribution yu remarquable yu nit yooyu def ci réew mi wala sax ci ay dévouement au service public comprendre du ma daal promotion des valeurs nationales lan lan lan nga doon décorer nit ñi lan lan impacté mhm. ndax man jàpp naa ne par exemple benn exemple bu ndaw Youssou Ndour de man li may bañ a d'accord ak moom d'accord ak moom soo ko nommé ordre national du lion et du chat moom dinaa ko nangu ndax fu ne yóbbu na fa réew mi jaay na réew mi fu ne waaw dem nañu fu ne ñëpp xam nañ réew mi ndax moom El Hadj moomu nga xam ne dañ ko expulsé de chez lui parce que amul lu mu fay location te mu woyoon fayu réew yi bonjour comment ça va comment va la santé plateforme yëpp ministère yi wàllu santé yëpp di jutu di da waaye boobu ku ñu ko décoration waneel ñu jël ndax mérite na ko impact na nga jëw religion Iran ndaw pendant des années wallaay Hachim day nekk ci télé bi jàngal nit ñi seen diine nit ñi sangoo ni ñu jàppoo ni ñu defaree julli ni ñu ko yàqee wallaay Hachim ku ñu ko décorationnel ñu jël hmm, mérite na ko oustaz Alioune Sall naka noonu dañuy jàngale nga jël ci professeurs yi jël ci wàllu science wàllu art wàllu culture côté yépp nit ku impact réew mi nga décoré yéen ñu ko loolu lan la santoon hmm, lutteurs yi nga jël di leen décorer bu ñu décorer lutteur parce que dégg fi loi des arènes am na xaalis dañoo bëgg nga décorer ñu lutteur yi nga xam ne dañoo dekk ay lutteur championnat d'Afrique indi fi ay médailles ñu dugg religion nomeel ñu sëriñu daara bi nga xam ne moo jàngal gone gi demoon fële ca Arabie Saoudite indi fi premier prix ci en monde entier ñëpp mu dem jël Sénégal jël premier mu indi ko kooku daara jim jàngee wala papa wala yaayam ki ko encadré mentoram daal en tout cas ba mu dem jël loolu ku ñu ko décoré ñu jël et enfin nga nommé ma nga décoré ma boo ko defoon Sénégal ñépp ànd yow waaye jël ay nit yoo xam ne du ma ne nag defuñu dara ci réew mi mais seen impact ce n'est pas aussi impactant que impactionnellement niñ ko niñ ko doon nit niñ li watar sax nga nommé des chevaliers ay mbay Guèye fay ay Viviane ah, ay vraiment yenn personnalité yoo xam ne si certes dañ leen di sant di leen gërëm parce que ñi ngi bégal nit ñi yóbbu nañ réew mi am na lu ñu def ci réew mi impact nan mais pas au point de bàyyi fi yenn nit yi dem di nommer noonu ay chevalier ordre du chat et du mbóot n'importe quoi taxaw sa fenêtre rek ku romb nga ne ko fii moo la wii nga ne ko kaay ma nommer la loolu moom wax dëgg yàlla ànduma ci tey ànduma ci suba da nga xoolaat li ngay def yaa ngi saboté nag kii yaa xamal yeelaa واتا وات احنا رك لي انا يعجب جن بريزيدان بي ما خرم رك